bureau de l'Assemblée vous violez une loi pour tontu une réponse politique loolu c'est extrêmement grave. est-ce que du firnde intéret bi nga xam ne mooy ñoom seen intérêt bopp lu weesu li ñu naan les députés du peuple. non non bien sûr mais nee naa la moo tax ñu waral a clarifier l'exercice ñoom tey seeni programme yëpp mooy nan la ñuy toogee ci assemblée bi c'est du jamais vu daal on fera tout pour dindi solution ci changer l'équilibre constitutionnel bi am. loolu mooy seen problème de seen problème nekkul loi de finance bi mhm. ak transparence yi ak exigence yu bees yu ñu teg gouvernement donte lee ñoom mën nañ grappiller ba am majorité mhm. loolu nekkul seen problème xamul li seen problème mhm. xam nañ ni bu ñu demee élection ils vont tous perdre ñoom quatre majorité bi seen i place ak seen i poste opposition bi am nañ doole de waaw ñoom sur la base des élections présidentielles ak de la composition politique en cours ku nekk ci ñoom xam na ni bu ñu demaatee élection ils ont très peu de chance pour. mais pour éviter majorité minorité et cetera euh, donc ndax mun nañoo coupler élection yi fi nekk yëpp à partir de maintenant. loo yooyu ci lañ war a jëm pour rationaliser ko. nga xam ni mais le voilà quinquennat bi boo defee élection présidentielle soo paree war nga mën a coupler. Mhm. législative ak euh, élection collectivité yi foog ñu dellu si. pour nekk un calendrier boo xam ni dëkk bi le débat politique. du ko absorber l'essentiel des questions que débat yi nekkati leneen une fois qu'on a fait ça clarifier nañ situation bi on passe directement à autre chose mm-hmm. le pays peuple est souverain su ko neexee mu jiital président jox assemblée bi euh, beneen force on fera avec y a pas de souci mais il faut qu'on arrive à ça loolu moo tax cette année bi war ñu bàyyi élection législative di am après 2024 mm-hmm. parce que le prochain régime bu ñëwee sur la base des cinq ans da amaat difficulté mm-hmm. di assemblée pour assemblée boobu donc que droit de dissolution vraiment nekk loo xam ni c'est exceptionnel. mais parce que y a un calendrier électoral. qui permet que président bu ñëwee mu mën a poser askan wi ni leen yéen a ma fal jox leen ma les moyens législatifs ma diriger jox leen aussi ñi ma jàpp ni ñoo ma mën a yoral collectivités yi comme ça lépp nekk benn package nga solde ko ci trois mois limiter xaalis bi ñu ciy dugal et puis limiter des débats sur des questions sans intérêt ñu restaurer assemblée nationale bu bees dans la constitution avec la nouvelle constitution jox ko un règlement intérieur qui permette à l'assemblée mu contrôler l'action du gouvernement et que député yi mën a am une indépendance réelle vis-à-vis de l'exécutif mi ngoog moom maa ngi ñëw ci yow dernière question euh, naka nga gisee sorti ñi nga xam ne mooy opposant yu bees yi ndax nag ñu ngi attaqué jëmale ci euh, premier ministre ba tax na sax ñu ngi naan euh, Bassirou Diomaye Faye dafa nëbb mu mel ni prési le ministre Ousmane Sonko fi mu ne nii moom la ñu jàppee ni mooy président moom koy baal ma rek question bi kay c'est simple mooy seen jiitu parti nekk actuellement premier ministre bi ku mel ni Thierno Bocoum nee na il n'est pas capable d'être premier ministre lan mooy sa xalaat. waaw déjà critique dañ ko war a accepter opposant bu neex mën ngaa jóg wax lu la neex te du soxla chaque fois boo génnee nit ñi tontu la di la may doole dañoo jóge ci élection boo gisee les opposants réels ñi demoon assemblée ñi demoon élection noppi. parce que déjà seen doole xam nañ natt nañ ko ci élection yi askan wi wan leen ban niveau de confiance lañ am ci ñoom. Mm-hmm. ak seen programme. ñoom ñu am élégance xam ni heure bii du heure wax deuxièmement il ne s'est rien passé de gravissime depuis que le nouveau régime est arrivé. Mm-hmm. lu jar wax gis nga opposant nag mën nga ni ah xaaral ma porox ndoll ut benn porox ndoll daal di ni diw mënul mais xam nga question yi ngeen leen di posé. Mm-hmm. yow boo nekkoon dans fii dans trois mois yow ban mesure nga rek nga laaj leen loolu ban mesure boo ne yow président nga ci trois mois yi doon nga ko jël nga déglu ko. opposant bu jàllul parrainage moom lan lañ ko mën a. waaw mais opposition moom xoolal légitimité. tey mën nga bañ a jàll parrainage suba nga jàll ko man mënu ma xeeb opposant mm-hmm. te dama lay nangul aussi nga opposé wu. c'est juste que jarul opposant bu jóg nga tontu ko mais ce qui important encore une fois. Mm-hmm. mooy ñu ñu ñu fexe te dans la bu ñuy defaraat la kii politique. Mhm. ba opposants yi am une réalité les partis politiques gis nga bu ñu ko rationaliser wul coow yi yëpp dañuy topp toujours. Mhm. ba ku jóg nekk opposant wala dara opposition dafa war a am. mais sur la base d'une représentativité. Mhm. nga xam ni nag booy wax dañ naan kat yow élection yi nga jëm nga jóge temps nga am. wala temps nga am yow ñu mën a xam mais c'est nécessaire maintenant daal li ci am solo. mooy soo leen déggul les grands opposants wax mm. c'est parce que xam nañ ni ñii defaguñ erreur mm. te loolu moom moo gën nga nekk di wax di wax nga xaar mm. ba gis ñii bu ñu defee erreur yoo xam ni jar naa wax nga soog a génn mais ñii di agité wu nii c'est normal et puis ku bëgg am existence man dama la koy nangul dama la koy nangul mais après voilà euh, élection lañ jóge demoon nga demoo am nga xam nga yow nan nga toll ci réew mi euh, nañ leen bàyyi daal ñu opposé wu mais sans ñu def ko benn intérêt boo xam ni après day absorber parce que c'est de faux débats actuellement. Mm-hmm. la ñu monter en épingle. ba <laughs> booy lire dañuy defoon <laughs> Sénégal parfois <laughs> dafa nekk ci crise uh-huh. mais c'est de bonne guerre ouais. l'essentiel c'est que le gouvernement na am kabam mm. ñu bañ a topp l'agitation médiatique te xam ni les urgences mm. mooy li leen peuple bi li ñu dig peuple bi urgence mooy difficulté yi mm. te képp ku bàyyi urgence bi topp agitation politique bi dinañ la dugal ci circuit ancien bi ñu doon bañ pour ñu tëj rek mu mu mu kii kan mooy Maddy Maddy 2. ay waay. <laughs> Euh, euh, dinaa ñëw ci ñoom lañu antoon man kay man soo ma ko permettre. waaw waaw peut-être la bon. woon nañ ko fi ñu mm. njëkkee woon. Mm. mais ñu jeexale ko foofu rek. Mm. puisque waa Thiès nga son excellence ne saxaar si de daa bëgg mu yuuxuwaat. donc euh, lan moo ci sa xalaat ak wan yoon la ñu war a jaar pour mu yuuxu. te exceptionnel gis nga loolu mooy changer de paradigme. gis nga la transport. il faut que déjà économie boo bëggee mu dox. mooy nit ki mën a jëlee marchandise am Ziguinchor yegg si dakaar en moins de trois heures de temps def ko Kédougou mm. gis nga dem ak ñëw bi bu yombee sa fixe déjà le populations c'est c'est c'est kooku changement de paradigme la loo xam ne gis nga bu ko ce gouvernement réussir ci quinquennat bii mm. ba delloo si le rail dafay générer économie boppam tey am na entreprise boo xam ni mais nécessairement boo nee ko demal benn endroit danaan la mais su ma fa liggéey am Sénégal Sénégal réyul mhm. mën nga rallier un point à un autre maximum en quatre heures de temps mhm. nga ni ko yow au lieu ngay installé wu Dakar jël fi une emprise tot pour defar peut-être ay bëgguma tudd yenn produit ñu jàpp ni danga nga leen di viser mhm. mais est-ce que doo ko yóbbu ci bassin bële yow ginnaaw tu à cent mètres de la voie boo paree rek da ngay teg ci raay bi mu indi la bien sûr donc c'est exceptionnel ñu bàyyi infrastructure système mu président Macky Sall bi mu fi indi woon ñu créer li nga xamante ni mooy te gis nga raay moom amul dëkk moderne booy dem te fekkoo raay wër ko donc loolu président ñu ngi ko ci ñaax au delà de dundal dëkk yi dee woon yu bëree bëri bëri dafa am benn économie boppam bu muy générer boo xamante ni kenn xamul fan la commencé ak fan la yem. Mhm. loolu c'est exceptionnel ñu ngi ko ci encourager di ñaan population bi aussi jàppale ko ci bañu ñu loolu surtout nag ñun ñi dëkk Thiès. nga xam ni nécessairement. non non mais nécessairement nag ñun waa Thiès parce que yéen da a xamul Thiès da xam lu ngeen fàtte ci Thiès. dafa amoon ay kii yoo gis nga Thiès ñëpp boo doon jël le tissu économique li ci Thiès di peser bis bu ci génnee. di ngeen am problème yéen ñëpp nag yéen waa Dakar ak business pourquoi parce que xoolal les mines Thiès lañ nekk. Mhm. le tourisme ñun am nañ géej. Mhm. Kayaar Mbour da nga koy dégg Joal tout ça. Mhm. Thiès lañ ne tourisme bi. Thiès la ne pétrole bi am nañ ko. mii ni am nañ ko mais nag jariñuwuñu dara boo duggee cees mën nga ko wër en 30 minutes amuñu dara loolu tamit c'est un débat boo xam ni dañ koy poser autorité yi Thiès mooy sur le plan économique da ngeen di tëdd yi ci des rek mais Thiès li fa am ñun am nañ pétrole am nañ gaz boo demee Ngajaga da nga fay fekk gaz légum yi ngeen di lekk yu ci ëpp Thiès ci ci ci ci ñaay bi la jóge cees da cee am rôle mm-hmm. jën yi ngeen di jël mbooro mbuur et cetera donc ñun da ngeen ñëw buñ bu ngeen toogee tuuti dinañ def visa pour ngeen dugg Thiès waaw. <laughs> mi ngoog Thiès dañ koo war a dundalaat. parce que c'est le bassin qui est comme ça c'est pas du chauvinisme. Ah. mais moo ko war a nekk. bu sañoon moom moo ko war a nekk parce que ah. économiquement ñun poussière phosphate bi lañ am poussière zircon bi lañ am. Mhm. poussière mine yi boo duggee ci département de Thiès poussière bi rek lañ am. Mhm. kese mais mine ay milliards la ñuy tibb Thiès. doomu Thiès du ci jariñoo collectivité yi duñ ci jariñoo ñu génne ko yóbbu. loolu aussi c'est un rééquilibre là parce que Thiès suñ ko développé wul day nekk banlieue Dakar. Mhm. gis nga Thiès buñ ko développé wul ba fixé nit ñi Thiès. Mhm. cees day nekk banlieue Dakar. à mhm. chaque fois vous pouvez faire toutes les politique urbaines urbanisme yi ngeen bëgg. Dakar seen tourisme seen kii ak yëpp. Mhm. ku jaaxle Thiès état même pas une heure trente de une heure de Dakar. Mhm. donc il faut ñu développer ko delloo ko nag cëram te loolu aussi dañ cee war a taxaw. mi ngoog nuyu nitu Thiès yi bu baax a baax. <laughs> Idrissa Seck namm nañu ko namm nañu Idi <laughs> Abdou Abdoulaye Mbow. Euh, sa dernière kàddu par rapport ak li fi yëkkati rawatina saxaar si nga xam ne moom la